élection présidentielle yi day ñëwagul de ah waaye coow la tàmbali na le quotidien yéene kay ne ba ñuy déposé dem seen wàllum candidature yooyee te conseil constitutionnel day waaw la nga ne moo fa am day désordre ba ca xoo sax ma ne la la nga ne kon moo fa am day ah xel mënu koo jàpp de te nopp tamit mënu koo dégg déedéet ma ne la ba ñuy déposé kon seen wàllum candidature yooyee ah ngir présidentielle février bii di day ay booru ñetti waxtu di 15 topp ca Momar Ndiaye mi la bu fippu alaaji Malick Gakou ne c'est pas vrai loolee amul Mimi Touré jiitu fii déedéet dañoo defar ñoom benn liste xam ne day dañoo jël ah. leer Malick Gakou mooy wax de ah waaw lu jëm kon ci wàllum élection day gis nga candidat ah. dañoo waree dem na déposé kon seen wàllum candidature yoo bu zéro heure jotee di waaye ñun daal ñu jékki-jékki rek gis ñu defar benn liste xam ne day Macky Sall nekk ca kaw te ñun nag grand parti yamu ca parce fii ku fi ñëw day rang laa la wax waaw waaw termine yéene kaay ne moo tax El Hadji Malick Gakou day ah mujj teg loxo ginnaaw ga lañ ko bàyyi eh way Samba directeur info ne waaw parce que xotti liste ba nga xam ne kon moom moo nekk nag te conseil constitutionnel googee ñemewu ko de lii la Malick Gakou def da xotti kay El Hadji Malick Gakou ci le quotidien yéene kaay ne dama ne maa fi jiitu laa la wax Ousmane en tout cas la xew ca conseil constitutionnel ga eh, ëpp alaaji Malick Gakou day wane carrément ne booy géej waay la quoi daal di fippu xooti liste ba lépp la xooti kay mujj ko nañu daal di koy teg loxo sur quotidien yéene kay ne Aminata Touré day waaw da leen a jam wiiri eh, yooyu samba da leen a ne saax toog kanam ne maa fi jiitu alaaji Malick Gakou ne saax daal di kon xooti liste ba nag laa la wax eh, yooyu samba daal di créé raam teg ca les écoles yéene kay ne taxar wax ju ñaaw jaagu xënte ba nag lii ngir mën maa jiitu rek 24 heures gis suñu alternance ah du saala yaay ndeer laa la wax du dara te lii li ko indi day mooy politiciens yi rek ñàkk ngor ak wor ma suñu politiciens yi luñ diggee duñ ko def wàccu ba pare lekkat ko ñoo ca ay wor seeni kaddu luñ wax dëgg ñi nga ne askan mën a tuñ leen a gëm de termine yéene kaay ne présidentielle 2019 doojee waaw juróom-ñaari atkat yi nga xam ne ñoom ñoo ndam lu ndaw la ndaxte nag daal dina jot kon récépissé déposé mba kon te wàllum candidature nga kon te conseil constitutionnel jooje te loolee tekkiwul ne Karim Wade mi mën naa nekk candidat yi déedéet parce que nag nga nekk candidat tey wàllum parrainage gi moom lañ laaj da koy joxe loolee sax du doon problème ci waa PDS parrainage déedéet waaye leneen mbir li kay mooy est-ce que candidature Karim Wade boobu dana ko ana carte d'identité mi la kenn mënu ne Karim Wade day mën da bokk ci élection yi eh waaw dossier yi ngay indi day bokk na ca carte d'identité biométrique légalisé daay jege ñaale Karim Wade day nee na ñi ngi daw ci ginnaaw carte Karim Wade boobee ëpp na juróom ñaari weer la ko si yéene kaay ne moo de l'intérieur day daal dina tontu Karim Wade mi lée Aly Ngouille waaw nee na Karim Wade ne dem ca commission ba ca ko laaj leen carte d'identité waaye ne ko ba yónnee ko mais na fa dem maître ne solution bi day man la ah. ubbil tribune yéene kaay lu tolloo juróom-ñaar ci ay candidat na ma fan waaye deuxième tour yéene kaay gi ne waaw ak juróom rek maître Madické Niang am na ci ñeenti téeméeri junni 400 000 signatures yooyu eh Samba yóbbu na Macky Sall mi ne deuxième tour directeur info ne ko déedéet Macky Sall kay gagné na élection yi parce que sondage bi ñu mujjee def day cinquante six pour cent la jox Macky Sall eh way samba source aane gis nga wàllu parrainage yooyu waaw tey ma wax leen la ca ne yekkal ma méta expresso yekkal ma moo ñëw ca réunion opposition ba de front résistance ba maa la ko wax parce que Abdoul Mbaye day moo wax ca réunion ba ne ñi nga xam ne mataluñu ñeneen ñi am soixante cinq mille signatures Omar Sarr ne eh Khalifa Sall day coowal Khalifa Sall boobee caisse d'avance ba waaw Khalifa day danañu ko at ñaar fukki ban teeruk décembre réew mi quotidien moo ni ah. ci boppam nag daa bëgg a teggi tànkam looloy laaj waa libération yi ne kay ne waa Sénégal nguur gi lu tolloo juróom benn téeméeri million ci ay dollars la na fa jaar ministre Sénégal ne Sénégal day ma yoonam rek yokkute rek yokkute rek Mohamed Boun Abdallah Dionne day waaw daal dinay indi nag lu tolloo ak électricité alhamdulilah ci teewaayu ministre économie ak finance di Ahmadou Ba termine yéene kaay ne waa kër sëñ Touba yi day ca Géejawaay waaw uh-huh. waaw xam ne kon moom lañ fa doon tabax waaye xam ne kon moo teewal xalif général ak murid yi foofee day di imam Seydi Omar Bousso a mere Alioune Sall mi le ndax Alioune la mu diggee woon day da caa deful dara ana kër sëriñ Touba gi ñëwoon dañ koy tabax ca Géejawaay exclusive yéene kaay ne moo taxit waa Géejawaay day waaw danañu marche day doxu ñaxtu samedi bii di ñëw la 15 ngir ñu tabaxal leen ay armée musulman ak chrétien bàyyi tamit daa tugee nga xam ne kon nañu koy jaxat-jaxatee le pôle pour une alternative citoyenne di PAK nee nañu ñun dañoo joomi département yi nekk Sénégal ba mu daj département wu Guédiawaye kese moo amul ay armée li ñaaw na te la ca doy waar day mooy def nañu pose première pierre te xeer wu njëkk def nañ ko ñaari yoon ba fa Cheikh Sarr nekkee maire defoon nañ pose première pierre Alioune Sall mi lebar ki nee na suñu jàmbaar yi day soldat sa demoon sa golf ba waaw seen njaboot day dañu porte plainte gouvernement bi laa la wax ana seen xaalis wal fajiri de président Macky Sall day seeti woon na njabootu Sidi Lamine Niass ka alhamdulilah anjët yéene kaay ne président day di génn ba nuppi yëkkati ñaar fukki million daal koy jaale njabootu Sidi la témoin yéene kaay ne njaal ma kay élection ko tax a jóg les condoléances électorales de Macky Ahmed Khalifa <laughs> xañ Ahmed Khalifa Niass ne ko waxuma la ñaari mandat waaye askan wi duñ la xañ ñetti mandat laa la wax yow ma ki <laughs> waay Sénégal a neex politique bi ña àndoon ak Abdoulaye Wade yëpp nekko ñetti mandat ba jural ko musibaam bi daanaka ñëpp a tuxu dem ci Macky ne ko deux mandats trois mandats moo tax ma naan la tëjal